Nasru 18 safar. relation bi am euh, suñu diggante ñun ak waa Nasru 18 safar relation bu vraiment relation bu baax la parce que depuis trois ans ñun ak ñoom ñu ngi liggéey si ñi nga xam ne ñoom ñooy accidenté yi nga xam ne ñoom la ñuy recevoir pendant le màggal. ku ne màggal xam ne màggal dafa ànd ak dem ak dikk dem ak dikk it euh, buñ ko waxee ku ne xam ne ne dafa ànd ak ay gàllankoor. ñu xooloon ne màggal gi dayoom war naa toll ci ne nit bu jugee jëm Touba wala bu jugee Touba di wàññeeku Euh, bu suñ borom defee coobare ci moom warees na koo mën a taxaw moo gën muy tumuranke ñoom ñooy jàppale accidenté yi si mbirum implant yi nga xam ne ne maladie yi moom la ñuy jënd donc mu nekk lool loo xam ne dafa cher te peut-être ne ne hôpital bi mënu ko jëndal maladie yi parce que am na benn gratuité bi nga xam ne ne moom lay defal muy gratuité soins yi ak yooyu donc am na yeneen garab yoo xam ne ne ñoom ñoo koy joxe hôpital bi mais li nga xam ne ne moom mooy implant yi ñuy defal malaat bi moo cher lool ba nga xam ne ne waa Nasru ñoom ñoo ciy jàppale ñi nga xam ne ne ñooy malade accidenté yi. doon dem màggalu Touba daaw yàlla dogal nag bi may dem màggal moo dem ba wàcc garas dugg ci ab sareet yàlla dogal na nag borom sareet ba moom la waral accident ba moom moo ko waral ndax moom moo doon dawa moo doon dàqe. ba mu yéegee doodaa bi ci la moo saret bi sànnee fekk boobu mu taw bu siwet xam nga saret bu am tappi tappi day ratax te fekk ma yor ay xar léegi ba xar yi baras di bëgg a daanu ma def nii yóotu xar yi jàppatuma fenn saret bi sànni ma ndaka ma saret bi sànni ma tëb ci laa baras ci koo daanu ci kaw doodaa bi ci laa damme affaire sëñ Fallou daal affaire accident bi Dakar la dëkk Pikine da doon dem Touba bi ci veyu màggal gi dugg ci bus bi bi ñëwee ba ci APS toglu bi ci la bus bi defee choc waaw ci la nekkee nii daal ñu indi ko fii urgence hôpital régional Thiès. bi ma demee sëñ Moodu bi mu ko seetee ne ma da nga dem hôpital ma dem op ñu yóbbu ma hôpital bi ma demee ci lañ ko rajo ne ma il ñu opéré ko ci lañ ma dimbalee ba li nga xam ne moom laa waroon a fay ci hôpital bi. la ca ëpp ñoom ñoo ko def ñoo ma ci jàppale loolu it dama ci dollee sant yàlla ak Serigne Touba sant leen ci ndax ki nga xam ni kii da nga amee jafe-jafe mu jàppale la la nga mu defal la ko boo war nga ko sant parce que il suffit malaat yi yegg si ñu war leen a ñu signer lépp signer seen VPA yi médecin yi leen war a nelawal xool na leen médecin bi nga xam ne moo ko war a opérer taxaw na ñu oo Nasru Nasru ñëw indi implant bi rapidement donc lu ñu mën a wax rek moom mooy. Euh, gaawal na soin malade yi gaawal na prise en charge yi nga xam ne ne moom lañ doon defal malade yi donc au lieu malade yi durant les cinq jours du magal mën nañ jël rapidement les malades accidentés en charge à cause vraiment de Nasrou du Safar. kenn umpalewul ne Sénégal li fi gën a jafe mooy faju ci paju mu jaar yoon euh, ñëpp xam nañ ne it nit bu fekkente ne dafa nekk ci ay difficulté am koom bu nekkee hôpital xaar ba muy xaar balaa ñu ko def prise en dana yàgg lool ba yeneen mën na caa juddu. looloo tax ñu ne wax képp koo xamante ne dafa jug jëm si Touba ci màggal gi wala mu jugee Touba di wàññeeku ñetti fan yi jiitu màggal gi ak ñetti fan ginnaaw màggal ak gisu màggal gi bu suñu borom defee coobaram si moom la ñu fekk la fa nga nekk ci hôpital bi daal lay defal prise en charge bu bu bu gaaw boobaak léegi nag xam naa bi mooy suñ juróom wala juróom benneelu édition boo xamante ne suñ borom defal nañu taw feexu képp koo xamante ne sa kaa yëg nañ ko ñoo nañ taxaw ci taxawaay bu am solo ba suñ borom defal la tawféex ñi nga xam ne gàllankoor googu daan nañ àgg sax ci di leen topp di leen suivre ci seen traitement ba yàlla may leen jàmm ñenn ñi nga xam ne suñ borom daf cee jaare jël seen i bakkan daan nañ àggal euh, kuréel gi ci turu sëñ bi ci seen i mbokk dal di leen di jaale euh, massawu leen. maanaam seen taxawaay ci màggal gi moom maanaam am solo rek la def baax la def. ndax li mu li nga mun ki ki la koy defal moom mu ne wax lu baax la ndax ñi ngi dimbale doomu aadama yi kuy dimbale doomu aadama yi nag mel na ni yàlla ngay dimbale te ku dimbale yàlla yàlla dimbale la. macha allah faj bi jàpp nañ ci lool lool lool lool opération dafa metti xam nga faju sëñ Fallou rek gis nga gémmiñ gi lépp amoon problème. waaye mu jàpp ci lool nag lool feer yi feer dañoo feere tànk bi feere loxo yi lépp macha allah moo moo jënd kit bi ñu ko doon opéré kii bi nu mu tuddati bi ñuy dugg block xaalis bu bari macha allah da ngay fay ticket cent mille soo ko dugg bloc ordonnance lu ñëw tamit macha allah daal suñ ko wooyee rek wala du taxawaalu daf ma koy wari directement waaw loolu daal ñu ngi ko ciy sant ñu ngi ko ciy gërëm. sëñ bi jàpp na lool lool lool ci faju sëñ Fall ne bonoon dina ñaaw ne waajuram dafa teel a dëddu waaw jàpp na ci lool nag te ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant macha allah macha allah bonoon moom dana doy waar lool sax lool lool lool waaw. tal ni ma mun a tënkee Nasro euh, léegi nag mu doon liggéey boo xamante ne du am fii ndax ñun ñi dañ ciy nekk bu ñu fi jigéen ñeneen nekkal ñu fi ndax tànk màggali nga am liggéey ba di am. Euh, kon moo tax ñu si doon woow mbokk jullit di ndax euh, ñëpp xam nañ ne prise en charge médical Sénégal jafe na cher na te association bi fu mu mën a jëlee euh, xéewal gi nga xam ne fa lay yëngoo maanaam ki nga xam ne moo woote màggal gi muy xalif général moom kenn njëkk ko ci daanaka li ëpp ci la ñuy doxee ci moom lay jugee ak yenn bonne volonté yi fi nekk ci yoonu murid bi mel ni sëñ Bass Abdou Khadre ki nawleem ak ñun ñi nga xamante ne ñooy membres yi nga xam ne leen luñ mën rek ñu dajale ko Euh, léegi nag moo tax ñu ne nañ nañ ko eggee murit yi ba kenn ku nekk foo toll nga dégg xam ne lii kat moom moo euh, dafa dafa yelloog dayoo màggal gi te yoonu liggéeyal suñu borom la ndax liggéey ci soulager koo xamante ne xamoo ko loolu mooy liggéey ngir jëmmi suñu borom képp ndax innama nut'imukum li wajhillaahi laa nuriidu minkum jazaan wala sukuran am na ay des fois situation yoo xam ne di nga ko gis les malades yi nga xam ne ne dañuy ñëw pendant même le màggal malheureusement amuñu sax lu ñu jëndee implant te pourtant du accidenté yi donc ñoom Nasru dañ ciy taxaw def si li nga xam ne ne lépp moom moo si war topp malaat bi bu ñu mënee évacuer malade bi sax Nasru daf rek daf koy topp ba fi nga xam ne ne bërëb ba nga xam ne ne moom lañ ko war a yóbbu. buñ ko xayma 2016 ba tey maanaam at mu nekk lu mu gàtt gàtt dan nañ ci taxaw lu mat ñaar fukki nit ak juróom ñaa it seen prise en charge. Euh, taxut mu yomb ndax euh, jéyee bu amee nit ñi li ëpp ci seeni blessure ay fracture yoo xam ne day multiple lay doon bu ko defee la ciy xaw a jafe euh, mooy praticien bu ñëwee bu defee intervention chirurgicale implant orthopédique yi nga xam ne moom lañ ko defee moom mooy xawa a cher ba nit ñi daanaka mën koo jënd da leen di xaw jafe. loolu nag daanaka ñi nga xamante ne yëg nañ ko yëpp dinañ leen taxawu ci utal leen ko. taxaw bu ma taxaw si feebar bi jàpp na si bu baax a baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér barke sëñ wax ni jàpp na si bu baax a baax daal aw fayam bàyyi sëñ Tuubaa am fay rek fay ko buñ tane jàmm salaam nañ dem foofu seeti ko nuyu ko ziar ko bu baax donc yàlla dolli wér son sant na sant kay sant daal bu baax. Euh, yenn it am na ci hôpitaux yi la nga xamante ne dañ koy manqué ci ay garab buñ ñu sollicité it dañ koy jënd euh, ki leen waaye li ci mënti am mooy képp koo xam ne yëg nañ sa kaa dinañ la taxaw taxawaay bu mucc ay ba suñu borom defal la taw feex ndax euh, xam ngeen ne Sénégal tëdd na noo xamante ne faju jafe na fi te koom taxul mu mu yomb loolu ba nit ki bu fekkente ne gàllankoor dafa ñëw ci moom mën naa sonn loolu wala mu sonnal ay mbokkam ay mbokkam sonn ci loolu loolu daal moom mooy taxawaayu nasu ñëpp xamee ko donc taxawaay bi nga xam ne daal moom lañ mën a wax ci Nasrou 18 safar taxawaay la boo xam ne ne franchement euh, ñëpp apprécier nañ ko parce que gaawal na suñu liggéey trop ci li nga xam ne ne moom ba pare prise en charge malade yi gaawal na ko trop